ñuy ñu may ñu dikkaat ci euh, yoon wi nga xam ni réew mi aw na ko bu baak euh, léegi ba ñu ko taxawalee niki noonu njiitam di Idrissa Seck tey ñuy wax ni sax moo war a nekk chef de l'opposition bu ñu sukkandikoo ci résultat élection présidentielle bi ñu mujjee amal ci Sénégal ngir waxtaanee loolu yépp nag ñu dalal secrétaire national aux relations internationales bu parti mi moo jiite itam euh, école du parti docteur Yankoba Seydi dalal ak jàmm ci Demb ak Tay ñu ngi lay nuyu am dalal la maa ngi leen nuyu soxna si di nuyu say auditeur di nuyu waa Sénégal ak di masaw ñëpp ñi nga xam ni loru nañu ci euh, jafe-jafe yi lu mel ni Covid bi ak surtout li ñu mujjee gis mooy mbënd mi ak képp ku am jafe-jafe bu mu mën a doon maa ngi leen maa jërëjëf euh, docteur Yankoba Seydi euh, ni ma ko waxee nag li lay taayel waxtaan wi tey mooy euh, keroog fukki fan ak benn weeru septembre atum 2013 bi parti réew mi jëlee dogalu génn ci nguur gi ndax yéen a ngi woon ànd ak président Macky Sall ginnaaw élection 2012 bi mu doon kàddu gu Idrissa Seck moom mi ne woon ku gagné Ablaye Wade ci deuxième tour bi dafay ànd ak yow alors ndax mun nga ñëwaat ak ñun ci contexte bi. ngeen nekkoon ba tax réew mi jël dogalu tàqaliko ak président Macky Sall. waaw euh, jërëjëf contexte boobu defe naa ni euh, ñëpp xam nañ ko ñëpp a ngi koy fàttaliku. Euh, ànd nañu balaa boobu déjà comme ni nga ko waxee ñun bu ñu defoon suñu congrès d'investiture en novembre deux mille onze ci Ngor Jarama la fa waxoon ci njiit bi wax comme moo di Euh, bu yàlla defee ñu dem ci joŋante yi tànnateef bi su demee nag euh, bu fekkente ni moom du moom moo ñëw war a janok euh, ki fi nekk ki ki ki war a nekk Ablaye Wade boobu jàpp nañ ne xëy na Ablaye Wade naam mën na nekk ci kanam waaye mën na du mën du mën a gagné au premier tour donc ku nekk deuxième eh bien moom soxlawul sax mu xam sa tur kan la moom yow lay jàppale donc euh, noonu la woon ba d' ailleurs jàpp euh, balay boobu euh, waxtaan yi amoon ci digg leader yi ñoom ñëpp d' accord nañ nag ci ne loolu la ñu war a def ñëpp dañu war a booloo. ku bëgg a ñëpp dañ fi bëggoon jëlee Ablaye Wade. ñëpp dañ fi bëggoon jëlee Ablaye Wade mais pas jëlee ko fi xam ni Sénégal li ñuy wax la dañu mën a folli nit waaye mënuñu fol nit ñi. Hmm. defoon nañ ko Ablaye Diouf jàpp nañ na def nañ erreur ak Wade ñu def ko ak Wade. jàpp nañ ne tamit euh, fal euh, Macky Sall léegi ñëpp gis nañ erreur la donc choix en général la koy euh, la koy justifier du ñu jël temps trop maanaam mer gi ñuy mere mm. gi ñuy mere ki fi nekk day tax ba du ñu xoolaat bu baax naka la ñuy def ba mën a tànn ñu baax te loolu ñun xamoon nañu de toute façon pour Macky Sall man waxoon naa ko ñëpp ne bis buñ ko valee nag Euh, ñu rëcc ko te ñu bëree ñu ngi naan ma mais loo waxtaan ci loolu noonu la demee donc. contexte ah, ba yow nga tegoon ne bu ñu ko falee dañ koy rëccu. mais xam ko koo xam kañ du la jaxal foo ko xamee wala loo xamul nag. da ngeen a lu jiitu muy nekk président. ah mais Macky Sall xam nañu bu baax Macky Sall buy dem du boobu temps buy dem buy dem bu bëggee gis Idrissa Seck si ñan lay jaar. Hmm, ci yéen. ah non donc loolu dama donc ñun li xew. contexte bi dañu jàpp jàppale ko ànd ko ànd ak moom mhm. di ko euh, moom moo ñëw deuxième yàlla loolu la dogal amul problème Idriss Seck dafay euh, dafay wàccoog li mu diggee woon Sénégalais yi mooy que moom la ñu fal eh man dina ko dina ko dina dina moom lañu moom moom mooy deuxième. man mais est que foofu ba ngeen di ba ngeen di wax loolu nekkul woon juste pour euh, euh, peut-être euh, jox ko nit ñi nii mais au fons ngeen jàppoon ne Idrissa Seck mooy dem deuxième tour yaakaaru leen woon loolu. mais non non non parce que xam nga booy dem élection. Hmm. c'est vrai da jël am espoir ne yow. surtout bo liggéeyee di nga am espoir na yow mii mën nga sax première place waxuma la sax deuxième place. mais mm. première place. léegi nag mais kenn mënul xam c'est comme match de football mën nga wóolu sa bopp. mën nga wóolu sa bopp ñu ngi nii Barcelone nga xam ne jàpp nañ ne moo nekkoon équipe bu gën a xarañ ci àddina Bayern jàpp na ko duma ko ay ba juróom-ñetti bi yoo xam ne équipe bu nawetaan sax kenn du ko dugal bi yu mel noonu. Mm. mais loolu mooy euh, jongante yi nature jongante compétition noonu la. incertitude lay àndal. incertitude léegi nag loolu tax na ñu ni képp ko nga xam ne nii dem na deuxième tour ak Ablaye Wade ñun soxlawu ñu xam ne yow yaay kan dañ lay jàppale ca jàppale nañu Macky Sall jàppaleen bu bu rafet parce que ñëpp gis nañu mobilisation bi amoon Thiès loolu c'était difficile man personnellement nag j'ai dit ay du sec man du ma jàppale Ablaye Macky Sall te du ma ko votel hmm. honnêtement ça j'ai été kon voteloo ma ko te voteloo ma wat te xam ne man naa voté kon da ngaa boycotté élection bi daal. non j'ai pas boycotté man taal naa sama oto jël def si carburant dem voté xam nga ku ko def loolu yow euh, ci vraiment bëgg bëgg nga bokk ci ci ci jeu bi. ci jeu ci jeu kon loo voté yow. ah j'ai voté ni l'un ni l'autre et j'ai voté loolu mooy euh, loolu mooy expression xam nga vote expression la. Uh-huh. parce que nit euh, boo bokkee réew moom. Euh, sa yoon yoon may la nga mën a jubal sa jubal sa kaddu boo ko mënee def def ko. su ma la déggee daal bulletin nul nga def boobu. en tout cas daal pas bulletin nul ou daal voté naa. Hmm. te je me ci noo xam ne ni. loolu moom méngoo ak sama conscience. parce que mënu ma woon a toog il fallait ma def ko. donc bi ñu demee ànd ak moom nag respecté wul gis nañ ne yoon wi mu doon aw parce que bi euh, Idrissa di def sa conférence de presse du vingt mars. xam nga euh, élection bi 25 mars la woon. 2012. Mm-hmm. Mm-hmm. ñu dawal un an 25 mars Idrissa Seck def conférence bi euh, wax ak askan wi dañ ko invité seen benn naataango de la place ni nga invité ko mu ne leen mais ah yëf yi daal doxagul dañ ko laajee noo gisee yëf yi mu ne leen doxagul. Mm-hmm. donte un an kese lañu def doxagul. alors doxagul loolu ñoom ni ñu ko Euh, ñun daf ñu bett sax déjà parce que ku la naan dox gi yaa ngi ànd moom lii ak ngeen d'accordoon te nii ngeen di doxalee euh, un an ngeen dawal ko mën a la dox doxagul parce que lu tax nga wax ko mooy su ngeen jógee ngeen ne da ngeen dem Saint-Louis ñëpp xam nañu yoonu Saint-Louis suñu demee balaa ñuy àggay Saint-Louis ñu gis la nga jël beneen beneen yoon ñu ne la ah yoon wi nga jël baaxul ki la wax loolu c'est pour mu indiwaat la tegaat la ci yoon wu baax. bu fekkente ne nag yow kooku da nga koy da mere ci ne wax na la dëgg mais kooku de jàpp ne yow du warul mën a ànd ak yow ànd nawle ànd ànd boo xam ne ci dëgg lay lal loolu nag moom leen dal ba tax na gis nga boobu bu conférence de presse boobu bi daanaka pareegul sax ñoom ñu commencé pare seen missile ak tomahawk yi lépp di ko commencé gux ci ngay dégg ci nga déggee euh, waaje naan ko mut mbaa mot donc mënuñu nekk ci réew Euh, war war a am suñuy xalaat di ko war ko jubal ba pare euh, pour rien que yow ànd bi rafet pour nga réussir sa mission parce que ki la waxul dëgg mooy ki lay nax ki lay wax dëgg ci ni ngay gérer kooku dafa bëgg nga réussir ci sa mission. Hmm. loolu nag ki ko ki ko comprendre loolu c'est que kooku bëggul dëgg te kooku moom ñun xamoon nañ ko sax si Macky Macky mosut a bëgg dëgg bëggul dëgg. te moom si boppam pour mu wax dëgg yenn saay jafe-jafe la day jafe ci moom. Hmm. waxuma la dèjà ñi mu àndal. donc ki ki bëggul dëgg moom kenn bu mu xaar dëgg. ci lan lan la fi wax lu dul dëgg. mais ñaata yoon yow xanaa euh, yéen ñi journaliste ñi moom yéen xam ngeen bu baax ñaata yoon la fi wax lii mu def le contraire ñaata yoon ci inondation bi du nee na euh, campagne électorale bi mu duggoon campagne deux mille dix neuf nee na moom bi muy ñëw. ay ay ay junni junni sénégalais dañu nekkoon ci ndox moom bi mu ñëwee lal plan en quatre ans inondation yi jeex na takk loolu loo xam. Hmm. est-ce que loolu am na. loolu boo bëggee mën nañ ci ñëwaat si mu gën mais daal loolu moom euh, du waxoon na ni moom bi ñu ko euh, si juróom-ñaari at euh, la constitution may waaye moom dina dem def juróomi at mu jeex takk loolu waxuloo nii Euh, wax na frère am rakkam ne moom bu mu xalaat mukk ne mu fal ko ci décret ñu def du daf ko ñëw rek nommé nommé ko décret waxuloon ni tamit ne moom euh, buñ ko falee nguur nguur gi mu nar a teg euh, du weesu ñaari fukk ñaar fukk ak juróomi ministre gis nañu presque loo xam ne mat na <laughs> téeméeri téeméeri ministre soo naree soo naree liim kat kàddu yu Macky Sall yu waroo yu su waroo ak dëgg mën nga passé journée bi yëpp te doo doo pare donc mm. ku mel noonu déjà mm-hmm. Mm-hmm. waroon nañu xam ni kooku bëggul dëgg àndul dëgg ak tewul dëgg ndax bi ko Idrissa Seck waxee dëggam jooju nga xam ne daf ko def dafa defoon un an de juste ñu wax ko dëgg bëggul dëgg loolu ku bëggul dëgg dëgg kooku kenn bu mu xaar dëgg ci moom. loolu mooy wax ji. d'accord léegi bañ leen ne mbuut ma mbuut ñu bëri mm. déggee nañ ci ne kon am na ay xëy na mbir yu nekk ci biir ndax ku la ne mbuut maam mottu peut-être dafa mel ni ku lay menacé ci ay privilèges yu mbir yu bakkane yoo xam ne mi ngi la ko doon jox euh, seen ànd boobu justement ci lan la lalu woon. waaw xam nga amul privilège ñun àndu privilège taxul bu dee privilège moom moom moom wax dëgg yàlla bu dee privilège moom. Mm. xanaa kay Idriss rek eh, du bàyyi mag du du bàyyi Ablaye ñu ko ne xam na ne Ablaye Wade eh, tabe gi mu tabe moom eh, boo dee kese moom kooku ku ko bàyyi yaakaar naa ne moom bàyyi nga kii joxe ay hmm. privilège hmm. moom mag du loolu. gisul dina ñëw si diggante ma Ablaye Wade mais wax ñu déjà seen ànd boobu lan si lan la lalu woon. balaa ngeen di ànd est-ce que am na daje si lan ngeen déggoo lan lañ waxante ñoom ñaar. amul amul moom loolu la wax nee fal euh, nu mu tudd bu ku ku ku ku deuxième tour rek bu dul moom soxlawul xam sa tour dina la jàppale. donc mais mais après deuxième tour bi après deuxième tour bi Macky Sall ak euh, Idrissa toog nañ. non ñoom ñoo seet si Idrissa Seck Seck délégation Macky hmm. Sall Mimi Touré seen groupe yëpp ñëw toog seet si ko nee nañu dañu ñëwoon pour remercier ko ci ni mu leen jàppale ci élection mais li mu leen wax mooy loolu moo ci gën a intéressant mu leen may yéen bu dee pour ñu remercier ma ni euh, ci noonu ni ma leen jàppale ci soxla soxlawu leen ko parce que man li ma waxoon kañ dama ne woon su yàlla defee ñu dem deuxième tour bu fekkente ne du man maaw jàll pour jàkkaarloog wat mais ki ki mu soxlawu ma sax xam ki ki turu ki nga xam ne ni moom mooy deuxième man dama koy jàppale tout naturellement et sans condition. Mm. bu dee loolu la seen ñëw bi moom mënoon naa ñàkk loolu la leen waxoon kooku wutul benn privilège wutul. après amul ay rencontre secrète. non daje guddi dafay rencontre secrète non ah yooyu nekku ci muste musul nekk ci yooyu li muy def yëpp ci bëccëgu ndar kàmb la koy defee. d'accord jëloon nañu quand même ñenn ci yéen def leen ministre ku mel ni Oumar Gueye Pape Diouf. te man euh, boobu tamit waxoon naa ba sama baat ci kaw na leen ñun jàppale nañu euh, Macky Sall ba mu jàll maanaam suñu parti. Hmm. ak yeneen parti itam. Mhm. ñu bennoon bokkoon ci li naan bennoo bokk yaakaar mais li ma waxoon publiquement wax ko ci biir parti bi tamit mooy ñun parti d'opposition lañu dañu waroon delluwaat ci oppo et je me rappelle euh, bokkoon na ci ñi nga xam ne ni ci biir lañ nekkoon dañ ma ci mere woon parce que ñooñu ñu ngi doon tout de suite dugg ci gouvernement bi mhm. amay poste ku mel ni Omar Gueye déjà comme kër Idrissa Seck Omar Gueye daf ma meroon ba bëggoon na ma pes genre comme ko ko bëggoon mu wax lu mel rek yëkkati sa loxo comme ku koy pes hmm. parce que waxoon naa loo xam ne bëggu koo dëgg déjà moom il était a fond dans l'affaire parce que xamoon ne par A ou B euh, suñu noppee ci mbir yi moom mënoon na mënoon na am euh, poste. nu ko nu mu ko wala. Euh, yéen da ngeen a décidé woon ba pare. mais parce que de toute manière. xam nga ah, ci cadre yi mu daal xëy na fi mu féete woon ci place. d'accord yi bokk ci coalition bi. Hmm. parce yi gën a maj ñooñu. ñu am dinañu am euh, euh, ay poste donc poste yi lañ doon séntu te effectivement post am na moom dox jox nañ ko post te poste bi ñu ko jox moo nekkoon hydraulique gis nga déjà moom bi ñu defee sortie bi ñu defee sortie boobu hmm. ba mu pare Et puis voilà, ñoom euh, nee nañu euh, voilà que justement euh, euh, ñoom duñu génn si gouvernement bi du ñu topp parce que après li topp déclaration euh, conférence de presse rek mooy parti di daje na ñu def déclaration bi cinq mars la quelques jours après ñu def suñu secrétariat national ci la ñu jëlee décision ne ñun dañuy réew mi dafay quitter parce que réew mi war a ànd ak yow. ànd dëgg nga ne ko du ko fi waxee moot mbaa mot ñun nañu choisir mot loolu moo am hmm. léegi nag ñii ci biir réew mi ñoo xam ne amoon nañu ay poste te bëgguñoo génn ils étaient restés ñoom ñun ñu reconnaître que euh, loolu seen droit la mais argument yu ñu avancé déjà ça ne pas parce que Omar Gueye moom ci saa si bañ ko laajtee lu tax génnul nee waaye parce que bi ñuy jël décision génn kenn waxu ko dara mais loolu c'est du n'importe quoi mm. c'est c'est du mensonge je suis désolé de le dire euh, et puis il n'est pas cohérent ndax bi ñu koy nommé ministre man Idrissa Seck consulté wu ma consulté wu sax waa parti moom choisir na directement euh, ñi ñu war a il les a nommés c'était sa prérogative am en tant que président du parti mu nommé leen yow bu lay nommé te consulté wul parti bu ñu la bu ñu départ nga naan way consulté wuñ ma mais il faut sérieux il faut être cohérent loolu mooy lu am. donc Pape Diouf nag moom lu mu waxoon. Euh, c'est la même chose rek ñoom ñoo kenn bëggul hmm. kenn bëggul génn. waaw lu tax boolewul lu tax yëgalu leen leen que yéen tam te ngeen doon def secrétariat national bis boobu man maa nga woon ca seen siège ba yéen a ngi nekkoon fii Dakar. ñoom ñëpp yëg nañ ko ils étaient tous informés. ñëwuñu secrétariat national ñëpp la ñuy informé bu ñuy hmm. def réunion ñëpp koy jot convocation ñoom ñëpp jot nañ non non ñoom bëgguñu génn rek loolu mooy wax ji et après parce que ñoom rejoindre nañu APR euh, pour dans le cadre de Omar Gueye ak les autres voilà quoi. loolu yéen nan ngeen ko dundee euh, séparation boobu ak euh, Omar Gueye ak Pape Diouf. ça nous a fait mal parce mm. que c'est des gens yoo xam ne nii beaucoup de jeunes du parti jàppoon nañ ne ñooñu c'était des responsables yu gëmoon l'idéal bi Idrissa Seck di incarné. Mm. ñu war xool ci Idrissa Seck dund des des. plus plus plus de deux décennies presque trois décennies si opposition bu gën a dure alors que am nga possibilité yëpp jamonoy Abdou Diouf moom lay wax chaque fois bi ñu leen teje moom Ablaye Wade ak les autres leaders de l'opposition Jean Collin nga xam ne moo fi gën a cent boobu jamono mais demoon nag directement c'était que présent na que yow loo fi looy def ci ci topp si topp ci ginnaaw pa màggetum Ablaye Wade bii nga intelligent yàlla may la xel yàlla mooy la compétence ba pare nga jeune mais bul perte sa temps génneel nga ñëw ñu liggéey Idrissa ko man kooku nag laa tànn si mu nekk sama njiitu politique hmm. donc ku mu def loolu ñu ñëw yi tamit mu liggéey ba indi Wade au pouvoir parce que c'est lui l'artisan de l'arrivée de Wade au pouvoir loolu lu leer la bu defee loolu ba noppi lan moo ci tegu ñii di Euh, voilà, euh, quelques années après, euh, dem na donc comme dem est-ce que dem bi du ñëwaat mais moom demul il est resté deux deux ans déjà la def de cabinet hmm. presque primature déjà commencé nañ di ko attaqué ak maintenant ci ba buñ koy jëlee en deux mille quatre ci bopp gouvernement hostilité kese mu dund loolu yëpp plus hostilité yi jamono yi Diouf plus maintenant hostilité yi jamono yi Macky Sall bi donc dund na yooyu yëpp mais bu ko neexee mu jël privilège mais defu ko idéal boobu mu incarné boobu la ñëpp ñëpp ñëpp ñi nag ci parti bi muy jeune muy jigéen ak ñëpp noonu la ñu war a incarné parce que ñun loolu la ñu gisee politique ndax politique sénégalais jàpp nañu ne def politique moom wutum privilège la Euh, fen la. waaw politiciens yu bëri nag ñoo ñoo euh, tàmmal loolu askan wi aussi image boobu la leen wan. mais justement parce que politicien xam nga politique melul noonu. Hmm. ay politiciens ñoo mel noonu. Hmm. mais sénégalais yi ñoo war a xool bu baax ubbi seen i di xool politiciens yi mel noonu ñu leen ñu bañ leen mës a cër parce que ku mel noonu bis boo ko joxee cër nga rëccu ko. mais ku melul noonu am na fi Idrissa Seck na ko plusieurs fois mais li problème bi docteur Yankhoba Seydi mooy neexu ñoo xam li ñuy ñëw wax la ko nga yàpp nga jàpp ne kii mooy waa bu ñu faloo daal di tumbi bu moom a teg fële sol beneen mbetteel lay lay askan wi di am toul le temps parce que mënoo léegi def différence diggante ki jub ak ki jubul ci way politique yi loolu moom ñëpp xam nañ ko am na ku nekk am na un passé mm. xam nga loolu moo am solo xool ci passé bi tamit am na solo. léegi ñu ñëw justement ci passé sa Seck digganteem ak Abdoulaye Wade. dama euh, bëggoon wax d' abord passé wu Macky Sall rapidement. Hmm. Macky Sall ba mu nekkoon étudiant déjà la ñu xamoon ne du ko xam ne war na manes ko euh, amal confiance. ndax la ndax ku trahir mouvement étudiant plusieurs fois. Hmm. Euh, kooku. nan la nan la ko trahiré nan la ko non dafa trahir mouvement étudiant plusieurs fois les histoires de carte bleue ici temps wu Souleymane Niang mais moom ba ñu demee ba ba njiit yi euh, ba ñu ne kenn bu mu jël euh, carte mais moom il était dans le mouvement il était pas dans le dans dans le mouvement étudiant dirigé mais moom bokkoon na ci ne moom day jël te jël na ko loolu sa sapait le mouvement étudiant c'était une trahison qui était très mal ressentie ba léegi boo laajtee ñi mu bokkaloon génération baalaguñ ko ko ba léegi hmm. te loolu mooy bu gën a tuuti amoon na tamit cette histoire de bourse italienne ñu bëri quoi donc loolu moom ci loolu la dëkk donc des gens comme ça mënuloo mënuloo loo am mbetteel ci ñoom ba noppi ba mu ñëwee conditions yi mu àggee au pouvoir les ascensions yu mu am ba nit ñi naan oui mais kii il a fait il directeur et puis ministre premier ministre mais yooyu yëpp c'est pas parce que c'était un génie que la ko amee non loolu c'était un plan boo xam ne ni un plan de liquidation de Idrissa Seck moo ko mayoon loolu te moom il était au cœur de la chose bul fàtte ni moom mii moo doon lire l'acte d'accusation de Idrissa Seck à dans un hôtel de la place c'est quelqu'un boo xam alors que Idrissa Seck moo ko xëcc Macky Sall bëggoon naa immigré déjà dem tukki dem mais Idrissa ñëw ne ko écoute en 2000 bu si yàlla àndee dinañu am le pouvoir et comme on est suñu cadre yi bari quitté nañu dem. Hmm. ñëwal mu créer mu jox ko la structure des cadres Macky Sall ne fa. donc yi bi jàppale ko ci ak noo mën a xalaate jàppale ko promouvoir ko nag mais moo nekk le premier di ko trahir moo tax d'ailleurs bi yàlla Idrissa di wax Dieu n'aime pas les moi non loolu il s'adressait à lui mais ñu xam ku mel noonu il peut pas nous surprendre donc mooy ma wax ne et puis sénégalais yi les gens doivent ne doivent pas attendre woo na ma dañ duñ la xam da ngay ñëw nga wax lu lu la neex mais Sénégal premier mandat déjà Macky Sall xamal na leen bu baax a baax moom mooy kan sa vraie nature est-ce que loolu tax na ñu bañ ko voter au deuxième tour boo demee ba xam nit xam nga boo demee déjà buñ la xamul nga ñëw nga wax li ñu gëm la. Hmm. mais yow kii déjà xamal na la moom mooy kan. premier mandat premier mandat Macky Sall il a tout montré à tout le monde. lim c'est quoi sa léegi ñu ñëw ci Idrissa Seck. digganteem ak président Abdoulaye Wade aussi ni yëf yi demee tax na ñu bëri dañ koo jàppee ne koo xam ne daal di lay def day wax di askan wi après su guddee mu dem gisee kële pale ak yooyu euh, image boobu tamit ñu caricaturé jox ko Idrissa Seck yow ban jàngat nga si def est-ce que gisoo ne tamit seen di leader teg na ay jéego yoo xam ne tey am na njeexital ci ni ko askan bi di gisee. mais non non non non xam nga moom laa lay wax loolu dugg leen ñu koy wax parce que les gens. Mm. lu ñu xamul rek il faut que ñu jéem a trouver lu ñu ko mën a qualifier c'est comme loo xamul rek nga loo xamul rek nga ne ko eh koo xamul nga ne ko eh donc xamuñu si la mu nekk. Mm. parce que gisuñu ko. dégguñu ko. waaw léegi ñu ñëw d'abord bala ñuy ñëw ci tey ak absence am bi digganteem ak président Abdoulaye Wade. Mhm. Euh, ndaje yooyu mu doon amal guddi ak euh, peut-être li ñuy tuddee sax protocole de Rebeuss. nangu nga ne tey na xelu askan wi tey ci ci Idrissa Seck. non non Idrissa Seck dajewul ak Abdoulaye Wade guddi. Ah, daawu dem a midi. non non. ndar kàmb la demoon <laughs> au mm, palais mm. boobu xanaa da nga fàtte. waaw mais dañuy dégg ne tamit am na ay rencontre de yooyu peut amuñu si. mooy li ma lay wax nii li nit ñi wax. nit ñi rek la ñuy wax. Mm. Idi bu bëggoon rencontré Ablaye Wade kañ euh, lan moo rencontre bi euh, rencontre guddi. Mm. mais nga am bëccëg bëccëgu ndar kàmb kañ. def ko li mu defoon dafa leer nañ loolu taxoon am midi la dawandal midi. donc xam ne kooku lépp dafa bëggoon mu leer. d'accord mun nga ñu ñëwal ci épisode boobu pour ñi nga xam ne xëy na fekkee wuñ ko wala ñu fàtte ko. non non non justement parce que loolu ñi bëggoon nasaxal xelu nit ñi maanaam euh, ba euh, tur lëndëm nit ñi parce que dañu considéré Idrissa Seck comme seen adversaire wala ils avaient des comptes à régler avec Idrissa Seck ñoom ñooy tur euh, façon yi wax yu mel noonu yi nga xam ne dafa safaanoo dëgg mm. ak dëgg ak liy dëgg te loolu yemul rek ci jamono yu Ablaye Wade boobu la ñuy continuer ba léegi cest à mm. moom mooy koo xam ne li ñuy wax ci moom bu dee moo def loolu yëpp kon de kenn mënu ko xool ba mu rafet du moom si boppam loolu la na dañ maa peinture peinture ba man mii su ma naree xool sama bopp ci peinture boobu du ma xamee sama bopp te pourtant <laughs> li ñu wax yëpp dara du ci dëgg. léegi lu ko doon yóbbu pale jamono yooyu midi. midi. Hmm. mais oh, expliqué na ko ba mu leer nañ. waaw boo ci mu mënee ñëwaat ngi ñi nga xam ne fekkee wuñ ko ak. Euh, Ablaye Wade dafa bëggoon. Hmm. Euh, juboowaat ak Idrissa Seck ginnaaw bi mu defee. bi ñu ko tuumaalee ni d'abord euh, dañ ko confier travaux chantier de Thiès pour anniversaire pour indépendance indépendance du Sénégal ñu fête ko capital nga xam ne dañuy ñoŋal benn defar benn capital ñu ko bu ko defee ñu koy def de façon tournante hmm. ba euh, capitale régionale bu nekk mën a am euh, xaar kanam boo xam ne ni moom moo koy may mu mën a méngoo ak tuuti li nga xam ne moom la ñu mën a xool gis ko ci dëkk bu mag alors Thiès yàlla def ñi doon ñi seen xal màcc ci loolu décidé na Thiès moo ko war a Thiès parce que moo jege woon moo gënoon jege Dakar et puis c'était plus facile de faire des ouvrages des travaux et bu ñu mën a nekk ci délai yi alors ñu choisir Thiès malheureusement nag moom ci loolu la profito ah, mu tuumaal ko. mais lan moo xew ci travaux yi bañ tuumaal ko. dañu ni voilà dafa détourné xaalis ci ko xam ne ni. Euh, yow déjà bi ñuy lancer les travaux de Thiès il y l'État n'avait même pas d'argent beaucoup d'entreprises dañu new dugg ñu si sax parce que État amuloon xaalis deuxièmement euh, euh, bi ñu ko dàqee ba noppi Macky Sall parce que moom moon mujj nekk ministre de l'intérieur waxoon na ni déjà bi ñu yay maanaam li ñu décaissé taux d'exécution bi <laughs> mais xam nga yooyu yëpp c'était des preuves yoo nga xam ne mm. que lu ñu waxoon ci chantier de Thiès amul ba pare bu ne dafa détourner autant d'argent ça veut dire que Thiès amuloon dara moom il avait eu l'intelligence et le génie indi ay entreprises yoo xam ne en temps normal du ñu nangu mukk dugg ci projet boo xam ne état amuloon dara. Mm. d'abord et en plus moom il n'était pas ordonnateur des des dépenses naka la mënee sàcc xaalis ci loo xam ne du moom mooy ordonner dépense deuxièmement état amul woon xaalis tu vois donc yu mel noonu ci ngay xamee d' ailleurs Ablaye Wade na ci parce que moom loolu la jëkkoon a wax ne wii oui euh, dama ko joxoon lii euh, mu def lee mu dugal ko si poche bi mu demee ba xam ne argument boobu ça ci tient plus lan la ci def mu ne oui euh, je lui ai euh, mon parti il a cassé pour def ko pour ses propres ambitions. Mm. tuumaaloon nag tamit ne da ko yónnee woon fenn mu jël xaalis ba def ci poosam. waaw te d'abord d'abord bi mu demee ba xam ne loolu argument boobu ça ne tient mm. pas c'est c'est fallacieux ça n'a absolument aucun sens loolu amul du dëgg c'est du mensonge ci la demee inventé biñ beneen yoon bi ñu ko laajtee lan mooy sa problème ak Idrissa Seck mu ne dama ko jox sama parti mais voilà ñu ngi toj sama parti parce que moom am na ambition sangam lii ak lii ak lii donc voilà quoi dañ ko tuumaal yooyu mooy xeetu peinture yi nga xam te boobu bi mu demee ba xam ne def na def na yu mel noonu yëpp et que c'était pas vrai mensonge yooyu yëpp yàlla weer na ko et te il a perdu la face à un moment donné Idrissa Seck mi nga xam ne moom tëjoon na ko ngir affaire yu mel noonu mais justice bi ñu blanchir ko non lieu total. waa non lieu bi nag ah. ñu ne dafa tegu ci protocole de Rebeuss protocole boobu lan la wundu docteur Seydi boo xam ne kenn mënu kenn mënu wax lii mooy protocole xanaa protocole boobu du protocole xanaa ay protocole jinne la. ah mais waxtaan amul ci ci prison ba ba mu génn. am na kay fu fu génn gi jaar. mais non justice moo ko génnee moom laa la wax justice boobu yéen a ngi rappelé. justice bi boobu moo ko génneewaat. justice moo ko génne ci dëgg parce que ñoom koo xam ne yow. Euh, dëgg dëgg dëgg bëgg nga ko rey boo amee firnde bu gën a tuuti rey nga ko mais nga tëj ko doog a wut ay ay preuve yi ba yéen a ngi fàttaliku son ex ministre de l' intérieur Ousmane Ngom di naan oui voilà on a trouvé des armes euh, chez lui machin il des armes chez lui des choses comme ça yooyu c'est du mensonge donc yooyu boo ko defee ba nga gis ne yow li nga wax yëpp dara amu ci ba ñu gis seen bopp ñoo xam ne yow amul ba pare justice bi àtte mbir mi ba ñu gis ne kii deful tous non lii total la preuve bu chantier de Thiès bu ñu moom bu ñu koy bu ñu koy bu ñu koy tëjlu c'était pas sur la base d'un détournement si affaire chantier de Thiès loolu c'était faux hmm. mais dañu ne atteinte à la sûreté de l'État mooy bi ñuy wax waxu armée chez si base boobu lañ ko lañ ko defoon na détention préventive. Hmm. bu durée six mois donc pour vous dire que c'était que du mensonge. boobu lan lañ yaakaaroon ne moom lay préparer. non c'est parce que ñàkk nañu première manche bi ñu naan dafa détourner xaalis bi. Hmm. léegi il fallait trouver d'ailleurs je me rappelle quelqu'un disait que euh, oui euh, Idriss Ablaye Wade bi ñëwee di wax ko. Euh, ne oui voilà atteinte à la sûreté de l'État affaire armée ne leen débrouillez-vous pour trouver des preuves que c'était vrai parce que de toute façon euh, c'était plus facile que ngeen dugal ay arme këram après ngeen ñëw ne voilà mais lan lañ doon njort bi ñu waxee arme yooyu ban argument la ñu teg euh, ngir mun ko teg loxo. argument yi ku daanu saret rek parce que Idrissa Seck euh, naka lay defee coup d'état coup d'état hmm. arme coup d'état lañ doon yaakaar ne moom la bëgg a def. xam nga loolu xale bu buy toog a juddoo léegi léegi boo ko bëgg a gëm loolu déjà il yow da ngay fonto. Hmm. mais mais dégg nañu ku mel ni na Nafissatou Diop Cissé nga xam ne si yéen la nekkoon moom euh, bokkoon na ci li ñu jàpp euh, ci ñu dox ci protocole de Rebeuss boobu kon docteur Seydi tamit maître Nafissatou Diop Cissé dañ ko daan dégg toujours moom muy mentionné protocole de mais euh, mais waxtaan quand am na docteur Seydi diggante Ablaye Wade ak Idrissa Seck ba tax mu génn si kaso bi maître Nafissatou Diop kenn jàpp ko moom notaire la woon kenn hmm. jàpp ko moo nekkoon notaire u Idrissa Seck alors maître Nafisa Diop mënul bañ mënul bañ na benn protocole musta am boobu mu ngi mi ngi ci mbir yi mu dem ba mu quitté ñu na muy soog a wax ni protocole am na ba pare moom musul wane benn protocole moom mi nekkoon notaire man toog nañu débat man moom wal fajri hmm. ah, mais mun xam nga moo tax nit franchement ni ñu fooy man lii ma ci métti yëpp ni ñu fooyee xelu sénégalais moo ma ci mett hmm. loolu mënuma ko comprendre ñi mel noonu il mérite pas il ne mérite même pas le moindre respect de la part des Sénégalais parce que c'est pas des gens sérieux c'est pas des gens honnêtes c'est pas des gens vertueux ñooñu ñoo yàq politique bëgg nga dara rek amuloo ko léegi dina la jaral sax ba li nga xam ne yow wàcc won nga ko nga ñëw di ko naanaat maître Nafissatou lan la fi waxul woon ci ni li ñuy waxoon yëpp contre cette affaire de protocole nag amul quitté nañu parce que am na li mu bëggoon amu ko mu dem léegi maintenant wuy protocole ba léegi mus munul génnee protocole ani protocole bi. Hmm. d'accord kon daal waxtaan dara xewul diggante Ablaye Wade ak Idrissa Seck su ma la déggee ba tax mu génn kaso justice mi ko tëjoon moo ko génnee loolu nga wax. mais loolu mooy lu leer. protocole benn protocole moo fi am mooy protocole bi nga xam ni moo jëlee Karim Wade génnee ko prison yóbbu ko directement. Qatar euh, au golf. d' accord léegi Idrissa Seck bi mu génnee kaso lan moo xew ba mu dem euh, ànd ak ab Ablaye Wade ñuy waxtaan ba mu def conférence de presse ne dellu na ci parti démocratique sénégalais lu xew ci diggante bi. mais mooy li ma wax rek xam nga dañuy euh, kilifa yi doxoon digg ba après Wade demoon na ba xam ne. tëjlu ki nga xam ne moom moo nekkoon ton principal artisan ki la indi au pouvoir ba nga xamee ni sa cadre yëpp kiite nañu loolu erreur la si ba pare tuumal ko ci loo xam ne dara amu ci ba mu dem ba xam ne yow sa bopp xam nga ne sénégalais yi nañ ne li nga leen amul donc il avait perdu la face te soxla woon na ku mel ni Idrissa Seck ndax Idrissa Seck quand même ak ku ko ku ko mën a bañ nit ak loo ko bañ bañ bañ xam ni ba mu nekkoon ci biir la ordre ak euh, euh, maanaam la ordre amoon ay ay ay yu maanaam façon yi comportement yi bëri amatu amul woon les gens étaient réglo il y avait une vie de parti les gens voilà quoi hmm. organisation amoon na c'était grâce à lui mais biñ ko xeexee ba mu génn parce que moom li mu mel euh, ci ñemee dëgg ba pare organisation loolu arrangé wul ñu bëri du coup a ñi bëggoon yàq surtout yàqkat yi moom arrangé wu leen moo tax ñëpp ñëpp xeex ko du coup ba ñu demee ba bu mu demee ba génn si le PDS yàqu ba léegi PDS dafa dafa yàqu complètement léegi nag euh, diggante bi moom pour revenir à la question mooy hmm. euh, ñu doxoon diggante bi pour que ñu retrouver wu finalement parce que moom bëggul woon honnêtement il avait dit hmm. mais comme Wade xamoon na ni bëggul woon ni non pas ay dellu PDS non non. moom bu gisee Wade ak Ablaye Wade tout ça là. d'accord ko woon donc léegi euh, ak maanaam ak li xewoon yëpp. ça veut dire pour ñuy négocier maanaam pour ay ñëw ñëwaat déjà Wade pour mu bëggoon euh, pour mën a amaat Idrissa Seck li tafa dafa ay kilifa yu nga xam ne ni xëy na su jaaree ci ñooñu Idrissa Seck comme déggal na waxu mag ak waxu kilifa donc mënu leen ko mënu leen ko bañal. si ñan la jaaroon boo ñu mënee jox ay euh, exemple Serigne Saliou Mbacké xalif euh, général des Mourides ak euh, Serigne Abdou Aziz Sy Junior. Hmm. ci ñooñu la Idrissa Seck jaaroon. Junior moo nekkoon le l' artisan de la rencontre. donc euh, mais ba tey Idrissa nee na ne ñu daje mukk ci guddi dafay nekk bëccëgu ndar kàmba noonu lañ ko defee. Hmm. léegi nag mais moom. même retrouvailles yooyu après c'était avorté pour vous dire que moom demul foofu pour se compromettre parce que ba mu demee yi tamit ba ñu réintégré waat ko mais en plein secrétariat national en plein comité directeur du PDS la waxoon Wade li mu ko waxoon que ni voilà lii ak lii mais kooku ñeme na li muy wax. lan ko waxoon. non li mu ko waxoon kay mooy euh, que moom li mu ko nàmmal mooy bis pare mu am honneur yi mel ni Mandela yi mu amoon hmm. ah, ah mais loolu mënu ko am fii ak mi ngi dugg ci ay waxu jublu ci ay waxu troisième manda ay wala war a remplacer lu par sa sa sa doom yooyu bu ko defee li mu mënoon am hmm. donc mais loolu neexul gaañi te moom nag loolu mooy li mu ñemee dëgg bu dee ku ku bëgg leneen buur doo ko wax li mu dëgg hmm. mais boo ko waxee li mu bëggul dëgg mais yow dañu naan yow li ngay def c'est suicidaire. te Ablaye Wade mere ko ci loolu dëgg rek waaye ñu mere ko ci. te pourtant moom euh, loolu pour wan la nag nit ku sa nature c'est la nature de quelqu'un qui est foncièrement véridique. mënu mhm. leen ànd seen ànd neex ba moom mu làq dëgg. Euh, pour wax fen pour fen. d'accord kon dëgg jooju moo ko génneewaat PDS. ba léegi moo tax sénégalais yi war a xam ni euh, bu ñuy wut nju njiit bu jub bu ñuy njiit bu nga xam ne ni dëgg rek moom la gëm njiit bu compétent njiit bu organiser bu am méthode nañ bu leen waa ji rawee bu leen bu leen respect rawee mm. dinañu wutaat mm. te loolu il l'a du wax kese d'accord cheminement ngay depuis mm. depuis ba fii ci nga xamee kii am na lu mu gëm. d'accord léegi est-ce que euh, jàppoo ne docteur Seydi delluwaat PDS boobu juboowaat ak Abdoulaye Wade bi am na lu bëri lu mu yàqal Idrissa Seck parce que bi mu génnee kaso ñu bëri ci askan wi dañu ko safoo woon preuve bi mooy bi mu demee élection gis nañu euh, taux bi nga xam ne génnee na ko fa ñëw nekk deuxième. mais bi mu delloog Ablaye waat ba léegi dañoo gis ne nag wax dëgg yàlla sa Seck moom jugul ci di dellu gannaaw est-ce que rëccuwu leen tey delluwaat boobu ci ci parti démocratique sénégalais déjà boobu tamit delluwaat maa j'étais contre maa cela kon yow moom xanaa boo Idrissa Seck awee nii rek ne la ngay aw wala gaañi waa réew mi y avait ba léegi y avait des journaux qui ont écrit euh, journal léegi kii la direct news la mais avant ça s'appelait le matin defoon na ko à la une contre cela J'avais dit clairement que ce n'était pas la bonne le faire. parce que Wade mënuñoo def ñu defoon yëpp ba pare ñu war ko dem moo tax. man waat boobu nag noonu la jaaxalee sénégalais li ko Ablaye Wade def yëpp mu dellu moo tax ñu bari am jàpp ne am na lu xew. Euh, docteur Seydi protocole Rebeuss boobu ngay bañ ñu bëri dañ koo gëm. oui non ñu bëri dañ ko alors que malheureusement. loolu hmm. mooy c'est ça woon ci Wade pour se compromettre en réalité. Hmm. waxoon naa la sànq déjà dafa dem mu bi mu demee ba noppi mu wéyee di ko wax dëgg parce que loolu moo gënoon ci Wade gënoon ci Sénégal gënoon ci parti démocratique mais waa parti réew mi ñu bëri dañ àndoon si mu dellu. bon euh, les gens parti partis nit ñi demoon nañu man man de personnellement man maa demoon moo tax d'ailleurs bi ñu am suñu ancien secrétaire permanent. Mm. moom la may wax tout le temps mu ne ma yow yaay numéro un il m'appelle numéro un ma ne lu tax mu ne ma parce que yow bi ñu demee kañ. yow yaa bañoon ne na nga yow doo dem yow tu es resté au réew mi ba ñu naan réew que de membre du sexe boppam yaa ko war a signé. Mm. te muy dëgg <laughs> parce que. <laughs> yow yaa fa desoon donc voilà quoi. est-ce que foofu dama la bëgg laaj est-ce que Idrissa Seck mi ngi leen di déglu yéen seen xalaat genre bu ngeen ko conseiller lii est-ce que dina koy bàyyi xel wala day dem ak moom xelu boppam. si si si parce que ba mu naroon dem. Hmm. la fameuse rencontre de midi là au hmm. mais woo nañu këram woo nañu këram. bon on n'était pas nombreux certes. Hmm. c'était un cercle restreint ñun ñoo fa nekkoon man si boobu jóg naa ma ko. pour telle et telle raison man je ne suis pas d'accord am na ñeneen ñoo xam ne ni ñooñu jàpp nañu ñoom ils étaient politiques pour ñoom il fallait le faire ci base boobu la Idrissa demoon donc daal lay xool bu ñu ñu a bëri lu ñu wax loolu lay def voilà d'accord encore une fois comme ni ma ko waxee rek demul sax parce que moom xamoon na ni euh, xamoon na waat bu baax quoi xamoon na de toute façon euh, y avait des choses il pouvait y avoir des choses pas très euh, pas très euh, na demoon na daal mais pas vraiment pour se compromettre. léegi bu weesoo nag ñu ñëw ci seen parti bi parti bi itam dafa mel ni demul dikkut ba ngeen ko créé ba léegi daal dafa mel ni ba leen début ba rëccee ba di di doog génn prison moom ba léegi moom avancé wu leen euh, reculé wu leen sur place daal ngeen di def. pourtant non avancé nañu bu baax. c'est hmm. un parti grand parti boo xam ni. am pratiquement dans tout le Sénégal. ñu bëri si seeni kàngam dem nañu Me Nafissatou Diop bi moo doon wax sànq Thierno Bocoum colonel Kébé tout récemment Abdourahmane Diouf nga xam ne daanaka moo doon incarné euh, voix wu parti bi ñoom ñëpp daanaka daw nañu lan moo xew. waaw waaw waaw loolu loolu boo ko bëggee xool ci. Euh, euh, personnalité médiatique yooyu dem mm. di nga fausser élément yi parce que élément bi. Hmm. da nga la meilleure analyse à faire mooy euh, on était à un point A di jëm. Hmm. est-ce que bi ñu nekkoon point A ak diggante bi ñooñu ngay lim di génn est-ce que ñun dañoo am dañoo wàññeeku ci ci ci ci euh, cofeel bi ni ñu am ci ñoom wala dañoo am yokkute. loolu mooy la bonne ah, question. ah élection yi li mu wane du lool de. élection lu mu wane. Ah, élection élection avant avant euh, présidentielle bi ñu weesu quand réew mi euh, amoon ay dellu ginnaaw yu bëri. déjà yéen yooyu présidentielle yëpp dangeen ngeen wax ne bii di ñëw moom ce sera la bonne. idi troisième président idi quatrième président. non non non ah. waxuñu loolu non non erreur la 2012 loolu mm. tamit les gens font cette confusion là. Mm. ma 2012 a gën a neex a analyser. ñëpp place de l'indépendance lañ doon parce que lu tax ñu def loolu avant élection comme Wade bëggoon na troisième mandat bëggoon ko forcé conseil constitutionnel di ko ci feelu leader yi dañu d'accord ni ñoom dañu si signé benn charte ñoom ñëpp dañ koy d'accord d'accord bi mooy lan Wade fii mi ngi nekk candidat kenn ba mu dem campagne nañu ko boycottal élection yi bu kenn dem yaa ngi dëgg hmm. ñoom ñëpp ñu signé ñoom Moustapha Niass Tanor Dieng ba mais après ñu xam nañu Macky Sall fi ma jaar mooy bi ma lay wax ne Macky Sall kenn mënul gëm ay wax yooleeku dem campagne ñoo dina wuy man waaw man damay dem campagne donc li mu d'accord nag ñëpp mun amul kaddu bu nekk kaddu kenn mënul ci kaddu donc li mu la promettre suba bala ngoon mu mu ko donc lu mel noonu mais ñun comme Idrissa kaddoom moom kaddoom munul c'est-à-dire que bu bu amee li gën a la te loolu c'est une qualité extraordinaire moom nee na comme loolu lañu ñu d'accord man ci lool lay nekk moo taxot ñun à place de l'indépendance dañoo gazé gazé gazé ba tas man je me rappelle defe naa année boobu dama naan ci gaz mm. et je me rappelle Youssou naan wuy euh, lacrymogène yi daal ba mu gaa tànk bi gaañu mu am gaañu gaañu yi pas vrai Youssou Ndour dafa ñëwoon euh, indépendance parce que comme ñun foofu lañ doon nekk ak Idriss leader les autres leaders a ñoom moom Lamine Diallo ak ñëpp ñëpp dañuy ñëw après ñu benn moment après saluer Idrissa Seck dellu. Hmm. Youssou Ndour ci loolu la woon moi je me rappelle maa ngi ci kaw oto Idrissa Seck Youssou Ndour bu mu ñëwee ñëw ba àgg ci bi mu ne ma mais Andy Dramé ma mi ngi ci biir mu dugg mu dugg dem euh, nekk moom en instant ba muy génne mu ñëw taxaw ci kaw avant muy wàcce ma ne mais ma ne grand yu ma ne ko mais affaire yi nee tekk de bépp ñu ngi taxaw di euh, avant avant place de l'indépendance di xaar bëgg àgg place de l'indépendance policier taxaw di xaar ma ne ko mais grand fii boo waxee boo waxee ñu dem indépendance mais ñëpp dañuy ànd dem bu boobaa policier du ñu mënal dara. Hmm. Youssou Ndour je me rappelle mi ngi dóor benn mi ngi lëkk benn verre fumé alors mu xool xool jël micro mu ne gaañi indépendance bi mu waxee loolu benn benn kenn ci foule bi xeer euh, mu dal policier policier du commencé la sànni lacrymogène hmm. après si la Youssou Ndour wàcce précipitamment de la voiture de Idrissa Seck hmm. pour mën a rejoindre sa voiture benn 4x4 bu ah, si diggante bi defe la amoon na euh, benn lu xaw a kii hmm. après ba le ñu naan woy dañ ko dóor lacrymogène c'était pas vrai j'ai vécu tout ça donc voilà on a vécu ça ñun demuñu campagne suñu lépp c'était pour respecter la parole de Idrissa Seck son engagement demuñu campagne ku demul campagne mais xalaatuñu fal ko mais xoolal li li gën a intéressant on a vu quoi a plus de deux cent douze mille sénégalais yoo xam ne kenn demul ci ñoom pour ñu voté leen ñoom ñoo porté Idrissa Seck seen i xol. Mm. amul benn leader bu am loolu amul Sénégal ah, aucun leader n'a ça sympathie boobu kenn amu demuloo campagne ñëwuloo ne kenn voté leen lu ëpp deux cent douze mille sénégalais voté la. plus de huit pour cent de l'électorat mm. kooku mais mais mm-hmm. bu weesoo présidence waaw bu présidence bi législative tamit gis nañu ne peut-être amu leen noonu noonu député daal groupe parlementaire sax mënu leen ko woon am non de législative yoo xam ne noonu dem nu mu demee noonu élection dañ ko sàccoon loolu xam nga boo waxu c'est pas yomb mm. kan moo fàtte kan moo fàtte législative les gens pas voté parce que carte yëpp ñu jaxase kooku dafa leer ba ak ak le système système bi fi tegoon ñoom ils xam nga bu ñu demee élection ñu wàññi système mooy le mode électoral bu ñu wàññee ñoom li ñu am mais ils ont ils sont minoritaires devant l'opposition opposition boo boolee seen voix yëpp voix yi opposition am donc euh, euh, su fekkente ni euh, on était dans un système beaucoup plus démocratique mais loolu ñoom ils seraient dans l'opposition mm. au niveau du parlement mais demeewul noonu dañ ko defee noonu rek justement parce que bëggoon nañu coûte que coûte am cette majorité xam na ne bu ñu amuloon majorité au niveau du parlement Macky Sall parewoon na ba mën a àggali mandat moo taxoon jaraloon na leen lu ne hmm. façon bu nekk def nañ ko les gens n'ont pas voté ñu fexe yow nga nar a voté fii ñu dem kan sànni sa carte Kédougou wala ñu changé seen i tur ils ont fait ça sciemment parce que ñoom bëggoon nañu labet carte pour que élection yi bañ a leer defee ñoom ñoo ci am kon ils ont reconduit le même système à la présidentielle avec euh, cette histoire de parrainage moo gën ko garawal parce que coûte que coûte bëggoon nañu Macky Sall euh, jàll mais Macky Sall mënul gagner benn élection sérieusement organisée et très honnêtement organisé mënul gagner élection c'est pas mais présidentielle bi ñu weesu nag moom Idrissa Seck ñi mu ci àndaloon ay euh, parti yu am solo def coalition ñoom am euh, Amsatou Sow Sidibé ak ñooñu ñëpp nga xam ne yàgg nañ ci terrain politique bi euh, mais taxul tamit mu passé peut-être benn niveau bi ba mun a xëy na sax jege. candidat bi est-ce que yaakaaroon ne tamit bu nekkoon dëgg-dëgg ci xolu sénégalais yi fal nañ ko ci 2019 bi nga xam ne nag moom daanaka ay kàngam rek ko gunge woon porté candidature am. oui mais dès léegi Idrissa Seck dafa nekk ci xolu sénégalais jox naa la preuve ne la déjà 2012 campagne wul deful dara waxul kenn. waaye 2019 campagne na. non justement 2019 lu xew élection xanaa élection bi ku nekkul Sénégal sax xam nga ne xam nga ne élection Sénégal moom lépp c'est tout sauf des des élections. Mm. mooy li Moustapha Niass waxoon Abdoulaye Wade en 2007 que ne yooyu Wade n'a pas remporté les élections il a emporté les élections loolu moo fi xewoon en deux mille dix neuf. Hmm. Macky xam na bu baax ne mënul amul amul amul résultat yooyu. ils ont forcé les choses parce que justement boobu tamit euh, suñu tegoon élection ci lu leer ba les gens voté sans bourrage sans rien ñu voté dans les meilleures conditions Macky waxuma la Macky deuxième sax du ko nekk. moom hmm. xam na ko ah non mënu ko nekk c'est pas possible. mais est-ce que yéen am ngeen preuve que ni euh, élection yooyu dañu kaa lubaloon. mais ñaata preuve xanaa kañ les meilleures preuves mooy preuve yu ñu am sur place naka ngay amee euh, benn résultat benn benn benn dëkk bu nga xam ne ni la population hein, <laughs> la population électorale est plus importante que la population de façon générale xam nga loolu loolu c'est du loolu saaga la sax hmm. yu mel noonu buñ ko gisee ak zone yi nga xam ne les gens dañuy voter ay xel c'est que yooyu franchement zone yi nga xam ne mënuñu def lu mel noon c'est yooyu ñu koy defee mooy des zones presque yoo xam ne c'est extrêmement éloigné y a rien y a c'est un grand vide mais dans les grandes zones urbaines yoo xam ne les gens sont mobilisés seen sàcc mënul prospérer lu baax mm. moo moo tax à Dakar ils n'ont pas gagné à et et partout dans les grandes villes euh, dans les dans les grands bastions électoraux Dakar Euh, Touba Thiès léegi ginnaaw élection boobu. Idrissa Seck jël deuxième tey ñu nekk ci coowal euh, statut euh, chef de l'opposition ñu bari nag jàpp ne Idrissa Seck moo ko yeyoo ndax moom moo ñëw deuxième ci élection présidentielle bi ñu mujjee amal ci réew mi est-ce que Idrissa Seck bëgg na nekk chef de l'opposition wala jàpp na ne mooy chef de l'opposition tey. waaw xam nga ñun nag débat boobu moom lay wax ñun débat boobu ça ne nous intéresse pas du tout parce que pour ñun loolu du farata Idrissa ñaata at mi ngi si politique est-ce que mos nañ ko dëgg mu naan wuy euh, euh, man maay lii man maay chef de l'opposition wala da ngeen may jox lii wala non Idi depuis des années mi ngi politique politique de depuis Idi du mu amee quatorze ans la xamante ak Ablaye Wade mm. te mun naa euh, sa vie politique su commencé wul période boobu euh, euh, jege na ko donc ba bii mi ngi mi mi ngi si mi ngi si langue politique. ñoru ko li coow liy bari bari. non il n'est pas dans cela parce que pourquoi pourquoi subitement ñu créer boobu dañu bëggoon diviser rek. Hmm. mais koo xam ne yow parce que nee naan way euh, affaire boobu am na xaalis du coup mais Idriss ñaata ñaata ñaata li mu dugal ci politique mais ëpp fuuf li nga xam ne moom la ñu nar a jox. ki ki ñu def le le chef de l'opposition c'est pas ça qui nous intéresse il ne court derrière absolument rien mm. il ne demande rien du tout ce débat là ne nous intéresse pas ngi wax ne tamit jamono yi ay waxtaan dafa am digganteem ak président Macky Sall ñu koy wax de di foog laaj leen comme yéen ay journaliste ngeen di foog laaj leen ndax loolu moo gën a important puisque nee naa la jamono yi wàdd ñu ngi doon wax loolu hmm. mais voilà mi ngi négocier mi ngi négocier euh, Jean Collin jamonoy Jean Collin Jean en plein jour la ñëwoon ñu bëggoon gis dina en plein jour en plein jour la ñëwoon di ko naan gé bëgg ko prison pour ni ñu dem négocier machin nanguwul ko nangu nanguwul nanguwul ko kon nag comme ça il peut pas l'accepter maintenant il l'a pas accepté pour Wade non plus mm. donc euh, c'est pas maintenant qu'il va le faire les gens soient sérieux d'accord kon waa mi tey su ma la déggee coowal euh, opposition ak chef bi nekkul lu ngeen di waxtaanee ci seen ay instance bàyyiwu leen ci sax xel waxtaanewuñ si loolu loolu daf ñu intéressé wul daf ñu ñorul d'accord du loo xam ne ñun ça nous intéresse d'accord fi ñuy jeexalee mooy seen parti boobu nga xam ne sànq maa ngi lay ne dafa mel ni mu dikkoon yow bokk nga ci jamono yële ñi fi ko ci woon kàddu ne parti bi dafa mel ni daanaka lu dee dundatul ndax ndaje amatul euh, réunion watuleen lu bari itam luy xew di dal ci kaw askan wi muy ay jafe néew na li ñu ciy dégg réew mi wala bala ñu ko cay dégg day fekk euh, coow la wax nañu ko ba teg ko ci suuf parti réew mi lan moo ko daal jamono yi docteur Seydi waaw dafa am ay problème interne yoo xam ne loolu ñun ñii ñoo ko nar a suñu biir te jàpp naa ne dinañ ko def bu soobee yàlla bu waxtu wa jotee donte jàpp naa ne waxtu wa jot na bu yàgg donc parti boo gis bu euh, am ay bànqaas am euh, bànqaas yoo xam ne ñoo gën a kawe dañuy war di daje su amee ay ay ay ay question yu am solo yoo xam ne nii war nañ ko waxtaanee ñu indi ko waxtaanee ko euh, ñi si seen xel màcc ñoom itam ñu àddu ci ba ñuy dem ba jàpp ne lii bu parti naree àddu ci mbir mi lii ak lii la ci war a wax ñu préparer militant yëpp jusqu'à la base banqaas yi gën suufee ñoom ñëpp jot ko bu ko defee nag ñu harmoniser parti yi noonu lay doxee après nag mu àddu ci moo xam daf koy bind wala daf koy wax wala boole ñaari yëpp bu ñu dee def loolu comme niñ ko daan def moon na temps réew daan na def loolu hmm. suñ ko doon def mais ñii di wax naan dégguñu Idrissa Seck gisuñu ko mais duñ ko wax parce que au moins idi si parti la nekk te parti am mi ngi réunir di xalaat di daje di siwal seeni xalaat loolu dama ni loolu problème la si suñu parti deful loolu hmm. alors que parti bi Euh, am nañu euh, euh, disons tout ce qu'il faut pour ça. d'accord mais bañ lay dégg ngay wax dafa mel ni problème mu parti réew mi tey turam benn la mooy Déthié Fall. waaw mais loolu mooy erreur loolu Déthié Fall man Déthié bi ma ko xamee 2011 gii la. donc hmm. Déthié Fall yàggul 2011 laa ko xamee. donc Idy Diallo def ko vice président loolu itam juróon na ay frustration oui mais ban man loolu sax. finalement du problème ci man puisque mm. de toute manière mën nañ Idrissa Seck moom mooy le président du parti am na sañ-sañ def jël yi ay décision yu mel noonu mais buñ la buñ xasee ba dénk la responsabilité mat ko nag na nga ko mate mais gisuñu ko loolu vice président moom man gisuma ci def ci faal loolu laa wax mm. te loolu euh, ba fii euh, waxoon naa ko waxaat ko plusieurs fois Euh, dama noonu dama ci waxaat que wax naa ko plusieurs fois mais danga maa laaj rek moo tax. waaw léegi depuis loor tamit amul benn saafara Idrissa Seck moom lan la def pour que parti bi daal di dundaat affaire yi dox. non parti bi du mbirum Idrissa Seck suñu mbir la ñun. ah seen mbir la ba pare yenn décision yi Idi rek moo koy jël yaa ngi wax fi sànq ne moo fal de ci faal waaw non waxoo loolu mais loolu lañu ñu mun a dégg quand même si si si si. cest ah. dafa daan réunir réunir. réunir le secrétariat national. tax defatu ko. mais c'est parce que Idy dafa toog am ci lumu mu nekk ba léegi. ci lan la nekk. ci lu mu nekk loolu bis bu paree bu dina leen ko leeralal ba mu leer. nañ hmm. mais ñun. mais loolu du problème il a c'est son absolu te nous on comprend cela. parce que man bu fi nekkul jàpp vice président bee war a doxal. liggéey pour le Sénégal loolu moo ma leer. li mu nekkee nii ci cëll ji mu nekk nii ci liggéeyu Sénégal la nekk man lu ma leer la parce que xam naa it bu baax mais ñun ñun waruñu xaar loolu ñun nañu réunir suñu parti réunion comme am nañu vice président vice président réunion baluñ ko pour que voilà bu président nekk président nekkul mu mel ni vice président tam nekku fi. léegi moom vice président moom ci lan la nekk. loolu rek laa xamul nag. moom sax dañ ko gëj a dégg. mu ngoog alors que député la même temps war nañ ko mën a dégg dul ci rôle vice président mais ci rôle député mais bon on ne peut pas être surpris parce que on n'a pas une assemblée nationale euh, boo xam ne on peut en être assemblée nationale moom dañoo démissionné. ah waaw mais bu assemblée démissionné tamit euh, opposition parlementaire bi même ñoom war nañ fi nekk assurer quand même seen seen rôle. opposition loolu moom mënoo ko calquer ci ci assemblée nationale bi opposition opposition parlementaire si assemblée la nekk. waaw mais assemblée bu dee majorité bi ñoom dañuy nelaw xanaa opposition war a mën a du déggoo hmm. li ma la wax. man li ma wax li ñuy nelaw kañ du majorité kese ñëpp nelaw ñëpp nelaw. mais ñoom ñëpp nelaw kooku du ma ci génne masamba ci ci bàyyi ma dem ñëpp a yem. donc euh, ça c'est une responsabilité de toute l'assemblée. Hmm. man bu ma nekkoon député man dama doxalee noonu lu léegi yow malgré lii lépp gis nga ne réew meeg sa Seck euh, seen ëllëg ci politique lu lu mën a leer la. ah oui bien sûr bien sûr parce que euh, c'est parce que le secrétariat national ne réunit pas euh, et que kenn déggul Idrissa wala kenn gisu ko ne way ñu mën a parti bi dem loolu bañ ko dalay wax yàgg na après chaque élection wala avant chaque élection yu mel noonu day am ba ñu Idrissa Seck moom avenir politique am dee euh, moom euh, parti am sax dee na des choses comme ça mais à chaque fois euh, analyste yu def yu mel noonu yëpp bëri na ci ay journalistes ak mm. yeneen experts yoo xam ne des experts en tout qui ne sont experts de rien du tout ñooñu ci ñaateem rey parti Rewmi ak Idrissa Seck mais du <laughs> gisaat nañ ko chaque fois donc c' est pas parce que secrétariat du réunirul que parti bi day yaay fii de parti boo xam ne nii militants yi ñoom si seen loxo la nekk ci structures yi les gens sont en train de se parler au mm. niveau de la base les gens les gens sont en train de se voir les gens sont en train de s'organiser te loolu moo ñuy sauver ñun c'est important mm. te loolu dexe naa ne c'est ça d'ailleurs noonu la mbir yi war a doon demee base bi nit ñi di di di toog le seul problème mooy que dañu soxla bu sol te bu sol boobu moo xaw a sooxe moo xaw a manqué mais comme ni ma ko waxee ñun loolu comme c'est un problème interne bu soobee yàlla dinañ ko régler mm. à l'interne te c'est regrettable kenn souhaitewul militant yi kenn si ñoom ku ko waxul kenn souhaitewul nag ñu doxalee mbir yi parce que bëggoon nañu euh, dëgg-dëgg euh, yëf euh, parti di mu waree mel di ci di daje les questions il faut di leen résoudre di def ay propositions Euh, voilà parce que opposition la ñu nekk. Mhm. jërëjëf jërëjëf docteur Yankhoba Seydi amoon nañu mbégte lool dalal ci Demb ak Tay euh, ngir waxtaanee parti réew mi jaar jaaram ak Idrissa Seck ma fàttali li lay taayaloon waxtaan wi mooy li ñu doon fàttaliku mu xewoon fukki fan ak benn weeru septembre atum 2013 di keroog bi parti réew mi ak Idrissa Seck jëlee décision wu génn euh, ci Benno Bokk Yaakaar nga xam ne nekkoon nañu fa ak président Macky Sall yow yaay euh, secrétaire national aux relations internationales école du parti ñu ngi lay gërëm bu baax. maa ngi lay gërëm di la ziar. jërëjëf jërëjëf mbokk yi li nekkoon seen émission démb tey Fatou Thiam Ngom moo fare woon ci kàddu gi Diawo jalloo ci jàppandal gi dig daje beneen dimanche ñu waxtaanee leneen ak keneen jaa ngeen jëf ñu yendoog jàmm.